Baol Production 20 ans d'existence 20 ans de carrière 20 ans de succès waaye nag mbokk yi ci biir 20 ans yooyu Assane Ndiaye daf ci ànd ak xarita doomu ndayam Abdou Aziz Ale Ndiaye bii nag moo war a nekk troisième édition sargal Aziz Ndiaye l'homme d'affaires borom jado Assane Ndiaye ni damay indi la crème de la lutte sénégalaise xale yi nga xam ne ñoo dàkk bëre dàkk mobiliser dàkk ambiance ci lamb ji déglul ma grand combat bi mbay guy gi doomi Baol la jël daal du koy boole ak xale bi nga xamante ne nii mooy ngémboo yaraax di Moussa Ndoye dafa jàkkaarloo ak caatu Bambilor drapeau Ngagne Diouf maire de Bambilor dafa leer numéro 2 daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak doomu Jolof xale bi mën a bëre lool du Anta numéro 2 doomu Thiès war a jàkkaarloo ak Sayara Kewel numéro 2 dina fa jàkkarloo ak Boy Niang numéro 2 drapeau Naar Ñaan borom Sandaga yeneen combat yi ca gannaaw nag moo gën a neex moo gën a doy waar ndax Assane ay ndaanaan rek la boole Assane Ndiaye ak waa Bawol production nag dese lu ñu dara amateur Assane ni sponsor yi may àndal ci bés bi bokk na ci boisson original boisson Cobra ETDR établissement Touba Darou Rahman huile Jador distingo Sibet yi rendez-vous baa ci arène nationale ñu ànd ci ak Bawol production n'est-ce pas du ngeen Assane mbokk yi tey maa fi ak yoo xam te ne mbokk yi mooy Eumeu Sène Junior bëgg moom ci làmb parce que euh, digganteem ak depuis digganteem ak ba léegi Eumeu Sène Junior ngi entraîné di waaj nekk ci boppam di ànd ak xale yi di leen gunge mais boobaak léegi dégguñ ko mbaam taxaw adversaire yaa ngi am combat am na fi adversaire yoo xamante ne seen combat taxawul waaye ñëpp nee nañ dañ a ragal laataa loolu mbokk yi ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog dugg joxtaan Eumeu Sène Junior maa ngi lay. waaw maa lay fay waa di sant yàlla bu baax a baax julli si yonent bi sama ñaari waajur di sama sëriñ si mu Abdoulaye Fandar ñaan yàlla borom yokk leeram taas si barkeel xam nga di nuyu sama mbokk Baye Fall yëpp sama mbokk géwél yi bàyyi ma kenn ñaar suma ñaar rakk yi ma indi yàlla defal leen ndam bu baax a baax ci barke Cheikh Fall waaw ñu ngi ci làmb baax yoo xam ne toog di xaar di déglu gaay bu baax baax a baax a baax a oh, defe naa noonu am na solo mais depuis euh, bi nga sa diggante ak Serigne Ndiaye ba léegi dañu gis Eumeu Sène Junior chaque jour moo ngi nekk ci entraînement am di waaj saa boo ko gisee da nga yaakaar ne Eumeu Sène Junior làmbam dafa taxaw bu baax léegi ngay entraîné combat taxaw lan la waaw ay mbër lañ ci war a nekk chaque jour dañ ci war a nekk ci war a nekk chaque jour dañ ci Obali moom mi ngi waxee comme genre boobu fi ak bakkanu yaayam Eumeu Sène junior bu nangoo Mahone junior di mees bu nangoo jël avance mu xaaj 3 millions ci kase mu jox ko ko. moo waxoon loolu. Ibou Ndiaye Obali moo waxoon loolu. ndax boo nangoo jël avance am mu xaaj ci kase. 3 millions baax kase moom kase yëgul 3 millions amul 3 millions. moo li nga non non amul 3 millions ñoom amul yeggul foofu ci lamb amul 3 millions agul foofu. non non amul agul foofu c'est-à-dire man maa baax di may essence bëgg a bëre ak ñoom ñoom ñu yaakaar ne ay dañuy rosante dañuy rosuñu man maa baax bëgg a bëre ak ñoom mais nee na ak baxanu yaayam su ma nangoo jël combat bi mu xanaa yebewul yaayam noonu. yaakaar moo ko de. bon yaakaar moo ko yebewul yaayam noonu li TV la ko waxee tey ñëpp benn ngeen mu ne ak baxanu yaayam su ma nangoo jël avance bi moom mu teg ci 3 millions man nangu naa jël avance bi day ñëw ma duma ko ba pare soo ko tànn Ah, maa ko tax a bëre maa ko ëpp doole. nan ngay duma. Ibou ba li bokkuñu ma ak moom sax. ah Ibou Ndiaye man li ma jaaxal Ibou ko def. mais 3 combats la xaw ma 4 combats. 3 combats dama. non Ibou ma ëpp noonu. non non tout sauf ça 3 combats am cest à day neexoo parce que man ni ma waxee moo tax may gën ni ma waxee ji. lekk li muy lekkee la <laughs> heure yi. naan ak suma bakkanu yaa gu nangoo man maa pare pour bëre ak yow man maa pare pour bëre ak yow rak pare naa pour bëre ak yow. mais bu ñu ko tàkkee Ibou Ndiaye ku ko xam xam ko lutte avec simple bu Ndiaye di wane boppam saa bu ñëwee gëm-gëm bu dugg see doo laaj ànd mbéy mi nga ne yaa dàq ba Ibou Ndiaye. apte na pour bëree lutte avec simple lutte simple. apte na quoi wax loolu. waaw boo déggee apte na des fois da ngay gis jour boo xamante ni dafa am compétition da nekk mais mënul football. loolu moo daal Ibou Ndiaye. non mais mënul bëre wax Ibou Ndiaye mat mbër am na caaju mbër saf na mbër loolu. suñu borom suutaral na ko ci yooyu yëpp nag am na kaat am le mais bëre bi néew fa mais na bàyyi wax ju ji mu nekkee ay moom mbër la mënul weesu mbër du kayaaf yi mënul weesu mbër champion mënoo weesu mbër mbër kese nga mënoo weesu mbër mbër mooy daan mbër mooy daan mbër. amul defet de. trois combats la a jàngal euh, da nga ko bëgg a xamal mbër làmb wala mbër. mun naa nekk maître am ci mun naa ko wax naka la ñuy tegee wax la ñuy dóoree naka mun naa nekk maître am ci làmb lu simple nag des fois ngay ñëw mu def la ndaanaan xam nga ma def ndaanaan maanaam sax tàkkusaan yaa ngi bëree bu bu yàggee da ngay am da ngay am kii compétition day ne ci yow compétition day ne ci yow mais compétition ne ci yow nag ne ko daa ko ndaanaan nga am compétition compétition te loolu ndaanaan loolu daal kon yow daal su ma déggee fi mu toll nii bu la andilee avance Ibou nga jël ko noos si jàngal ko bëri Ibou Ndiaye non dafa ndànk xaaral ma la waaw dama ne la Ibou Ndiaye woo. Doudou Sané dama ne la Ibou ba xam bu ñu andee avance. xam nga man suñu borom dafa maa nattu ci làmb oh, ñu may jox neex ñu ñu dantaros ñoo xamante yaa neex ay mbër ay mbër yoo xamante ne dañoo dëgër bopp loolu ma yàlla bindee euh, réussir naa fi je quatre personnes benn laay suwe muy Serigne Ndiaye 2 hmm. te suñu borom moo ko namee woon noon te maa ngi jagaar pour mu may ma pour mu may su ma nee nekk. soo diggante Serigne Ndiaye bu la bu may revanche nga dama gore woon dama gore woon. torop torop rawal ci làmb fuuf may la chance goreel a nga am problème adversaire goreel nga may ma revanche ñu bëri woon ma ak yow. a ñaan loolu dara la dara loolu dara bu ma bëreeg moom sept combat man ma am dix-sept. mais li ma jaaxal ci combat boobu mooy da nga ñëw ne Serigne maa ko raw ci làmb. combat bi ñu koy dox mu yéex a taxaw nga naan làmb boolewumaa moom xaalis boolewumaa moom mais bi nga ñëwee bërewoo xeexoo dóoroo jàppoo daanu nga. maa njëkk a dóor Serigne Ndiaye maa ko njëkk a dóor a dóor Serigne saa naa la combat bi maa ko ko na dama koy nangu bu baax a baax a baax. lan nga bëgg a foofu ba bu ko maanaam dafa am lu nga xamante ni dafa nekk ci dama ko war a wane ne carrément lii. ma dama la ko war a woon Zulu woonewu ma ko te Zulu loolu la suñu borom namoon ndax man xaw ma ñi ma doon daan lan la ñuy sentir. mais dama nga sentir non dama ne waxuma dama sentir dara de. waaw ma dama sentir dara dama ne ñi ma doon daan lan la ñuy sentir ma ma daan leen man voilà. mais dama pare pour ba affronter leen ñoom ñëpp ñañ boole ñetti avance sax jox ma. dama dégg léegi nga tudd Doudou Sané te dama ko bëggoon wax yaa wax. la bon nga tàmm ñi gën a ës ci làmb wala ñi nga xamante ne dañ leen di daw nga bëgg a bëri moom Doussane dafa dugg ci galaaw def 4 combats 4 victoires donc nga bëgg a jël Doussane lan nga bëgg wane waat parce que même su ma ko waxul koy wax loolu la ma yàlla bindee sama xayoor làmb yëpp yëpp mosuma bëri ak mbër boo xamante ni man xew naa. maa ko jël dama pare pour meew sens ndax booy bu la. Eh, booy bu ñu ngi lu la daan na ay moromam nañu ma may ko sens man ak moom. su boobaa xam ndax damaa xëy wala. xëy sonal na yéen waa géej daan na fa ñaar surtout sama préféré ba muy ah. bu ñëwee ma fayal ko. Ah. waaw loolu problème. Doudou Sané. Doudou Sané moom lamb la. su su su ñëwee du saane du saane man ak moom làmb la ordinateur man daaw moytu ma ci kenn kuñ ma fay damay bëre. ba pare xajam na xool Mor Fadam dañ maa yaxamti ba pare dañ maa yàpp booy ñu topp sama ginnaaw. fekk naa la fu ñuy liggéey. barki Serigne Bamba booy ñu topp sama ginnaaw ku ma ne ci liggéey na nga loolu ngay def ba pare ñu may ñaanal maa leen di ñaanal bu baax a baax a baax may ñaanal Cheikh Souba jamono ak ak suñu borom dafa leen dafa leen ndam lu sedd guy ci barke Serigne Fall Kaatu Fadam waaw ma leen di ñaanal bu baax yàlla dafa leen ndam. maa ngi bëggee bu baax a baax a baax. benn junior du ñëw.